Kumungarap, sakna ayuda kumungarap, serin de chola diap, serin salu kolas. Sewa kina dalone, seita kina dalone, nakkelina yadunre. Sewa kina dalone, seita kina dalone, nakkelina yadunre. Sewa kina dalone, seita kina dalone, nakkelina yadunre.

ne ku ne amagalo la ne ku ne sa kër koo de sama ay de saa ne ku ne ku ne amagalo la ne ku ne suuf de ak leen suuf ak leen suuf dégloo a dégloo a dégloo a dégloo dégloo dégloo dégloo dégloo dégloo nañu déglu soxna su dend si a dégloo gaañi a dégloo gaañi

jërëjëfati sang bi. ñu gën ngaa tedd siyaar di la ñaanal nga yàgg fi te te ñu jëriñoo sa yàgg fi yàgg la fay fekk sa taar gi sa tedd nga gi sa baax gi sa yërmande gi ñu lay sant di jiita suñu kàddu yi di la tuubal ci lu ñu xam ak lu ñu xamoon moom day sëñ xaadim seen woyam wii day waaw ñun ñëpp la dugg waaw barki sëriñ Béthio ndax ñun de yaa ñu neex barki sëriñ Béthio suñu cofeel ci yow amul condition dañ laa bëgg te loolu sëñ Béthio ko dogal moo la def ngay jëmmam mu simmi ko ci yow ba jeex takk boole ñoo yow ñu bëgg la gëm la wóolu la dawaloo la tey jii ak ëllëg ñu jëm ak sëriñ wootee dangaa wootee jëm ci màggalu sëriñ Touba gi ndax kat Serigne Saliou woone woon màggal gi de bu ñu màggalee ba ci ëllëg lañ war a tàmbalee di ko waajal gëm diwee te loolu de cuur yaa ñu fi teg yaa ñu dimbali ma soxna Aida yow buñ la amul woon fu ñu jëm soxna Aida buñ la amul woon fu ñu jëm barki Serigne Bethio kon ñun dañuy tas ndax Serigne Bethio daa def ci ñun bëgg ko bëgg Serigne Saliou bëgg Serigne Touba te duñu ay jur loolu yi yaa ñu si dimbali soxna Bato lañ koy wax sànq au passage ma koy lokkale ci siyaaram bu neex bii kàddoom yu dëgg ak yi lii mu wax ñun ñëpp la ko waxal ñun yow dañu am ñun yaay sunu sëriñ yaa ñu doy tey jii ak ëllëg ñu jëm yow la ñuy topp faw benn bët la am kat yow lañ ne ko jàkk yow loo def noonu la loo xalaat noonu la looy waaj a wax noonu la ñun ñoo ngi sa ginnaaw foo ñu duum jëmët ñu jëm barke Serigne Bacon ñu ngi lay sant ndax danga ñëw dimbali Serigne Touba ku ko ñam dootoo ñam leneen ndax dootoo xam leneen sax barke Serigne Bacon te Serigne Bacon mii moo ñu ci waaye yaa ñu ci nuur ndax ba ma nee bu ma nee war ay da war a gis di tuub ci wax ji ah peut-être que koo mati sëkk waykat bi da ko wax sëñ Béthio du def lu ñuy xeeb da koy matal soxna Aida Saliou sëñ Béthio da laa matal sëkk kamaal na barki sëriñ Béthio yow wet bu ñu xool oh sëñ Béthio du juum du jaawale ah bu sambee waaye kenn mënu sempi Serigne Saliou moo ne màggalu Serigne Touba ku ci mën yaa raw sëñ Bacso la ko wax nee ay da yaa mën yaa raw waay. li ngay ci màggalu Serigne Touba ki dañoo seere dañoo seere ci 100 millions ya keroog ba nga njëkkee ne 100 millions ñun ñëpp a tiit booba 100 millions ci ñun nga takk 100 millions indi sëñ Bacso keroog ji li may buñ ko fàtte xat bu neex. kenn mësu ko fee def barki Sëriñ Béthio loolu jàll nga xam sa borom bii ni ñu koy waxee saa su ne sëñ Béthio sama borom suñu borom jërëjëfati nga xam ni moo li mu defal la nga ne ah def naa 100 millions damay xal damay jëm 300 millions ci màggalu Sëriñ Touba ñu ne ah ñëpp daj seen i gémmiñ naan ma waaye lii nu muy demee. nga takk 300 millions yi indi ku tedd bi oh ñu sant ñoo sant ñu liggéey foofu nga moom ah noon mënoon naa jàll 500 mbaa mu jàll 600 mbaa mu dem 700 waaye benn milliard bi lay jëlee waaye ñoo sant sang bee la dimbali ndax yaa xam fa dogal yi bawoo yaa xam nees di ko ñaanee yaa xam nees di ko def di ko jëfee mu dimbali la nga defee ko nii nga ko defee milliard ba oh ku ne naan waaye ni muy demee ndax dana am du am nga takk un milliard yu te indi suñ bajo te booba kat ah sang bi bu fekkoon ni da ngay toog sa kaw lal yi sax ñu di la ko jox ñu ne tan waaye nga dugg ci biir réew mi àddina dem États-Unis dem Chine dem France dem Espagne dem Italie bàyyiwoo fenn ratissé ratissé Sénégal Kédougou Kidira oh ca jamono yooyu tàngoor wax dañ la doon xool dañ la daan yërëm ndekete booba yaa ngi ñuy dimbali ci sëriñ yaa jóge tournée di wër Sénégal ratissé Sénégal ba mu jeex sëñ dafa ne la yow maa lay teeru kaw la suñu séjour Kaolack boobu ñun ñi ñëpp kenn du ko fàtte. ak dégloo ku mu yàlla ma sa dem nga fa ngir wane yërmande ji sëñ Bacca doom ndax Serigne Saliou kat moo ne rus naa jamonoonteeg nit muy dee di dem safaan sëñ Bacca. Sall Serigne Sall ne sëñ Bethio ah nee na daam jigéen bi mu ko wax mi ngi fii toog sëñ Bethio jël Serigne Sall jël sëñ Bethio teg ne ku la gis dem àjjana ku la xam dem àjjana aajo yëpp faj sëñ Bethio dugg fu ne réseaux sociaux yi internet bi sëñ Bethio mi ngi tukki mi ngi dem fu ne dañ dem extérieur jékki-jékki sëñ Bethio oh sëñ Bethio kat bu demee ci ay château lañ koy dugal. moom ay cuisinier personnel ñuy ñëw di ko toggal si ay menu di ko dressé taw ba mu fees sëñ Béthio bu toogee ba yàgg ne damaa bëgg dem restaurant ku ne di xoolante mën naa waaye sëñ Béthio lu ñu wuti restaurant nekkate yow yërmande bi bëgg dimbali jàmm fu mu am nit ñi di ko xool di taxee di dem àjjana sëñ Béthio bëri yërmande bu lépp demee ba tekk Serigne Saliou def yërmande ci ci ku la gis dem àjjana ku dem àjjana ku dégg turam bi sëñ Bacca doon ko Serigne Saliou yabalu ñun foofu de ko ku ci am ngërëmul yàlla sëñ si yéene àdduna ne Mbàkke dinaa la nat sant ba Nations Unies keroog ba muy dem Nations Unies yéen ñaar ñii la sëriñ bi àndal muy sa ji ak soxna Batour ba biir Nations ci biir Nations Unies di jooyal ak cam Saliou sëñ Béthio bëgg sëriñ Saliou barki sëriñ Béthio waaye yow it soxna Aida yaa bëgg sëñ Béthio yow bu dul woon ak yow dootuñu dégg sëñ Béthio barki sëriñ waaye nii ngay yeewee xol ci sëriñ bi te muy yow ndax saa yoo ko yeewee ci ñun sa jëmm ji la ñuy yëg te nii rek nga dëkkee ak ñun nar nga ñu ci liggéey bi moo waaye gaañ yi atoor koy wax sànq mbég mii ñu nekkee waaye lii ku naan am poola ay caaxaan waaye mii po ni metti waaye ah mii po metti na kat say koppar di joxe man na def waaye lii moom bu ko ko na def kooku at daa yomb comme dañ dañ koo di dañ koo gisee lu yomb ba ne dafa yomb ba ne am ko ñoo la sant ñoo la bëgg ñoo jii ak ëllëg ñu jëm ñun noo ñëwee neex nañu lay ku te dëgg da ngaa bëri yërmande bay waxtaan ak ñun sa sa sant ba doon ngay wax sëñ Béthio